salaamaaleykum wa rahmatullah soxna yi ay xam leen seen bopp góorgóorlu leen ci seen jëmmi bopp yi nit ku lay bëgg te takkagu la daganu la nit ki lay bëgg ak noo ko miin miin ak loo ko bëgg-bëgg daganu la laalante beeg fóonante bi ngeen jéggal ma ci wax ji ci koo xam ne du sa borom kër yow miy jigéen est-ce que yaa ngi bàyyi xel suñ borom subhanahu wa taala mi leen tiim bu yàkkamtee loolu na la def soxna nga dagan ko ngay jaamu yàlla ci moom mais nit koy bëgganteel donte fukki at la waruta am agsi ci yow ci yu ndaw waxumalaat nag sax yeneen yi ci des mais àndante bi lëngënte bi da ngeen a foog ne dagan na daganul góor gu la takkul daganu la loxo sax warul koo jox nanu xam suñu bopp xam ne suñu jëmm yi ay valeur la diamant la suñ borom da cee dëxëñ secret yi gën a xóot ndax yàlla ci ñun la jaaralee doomu aadama wala xadd karam naa ban aadama suñ borom li mu sàkk yëpp doomu aadama moo ko ci gën a moo ci gënal moom la ci gën a fonk moom la ci gën a jox cër da koo jox cër ba daganal ñuy faat yeneen bakkan ngir doomu aadama ngir mbégtee doomu adama tëral xar rey xatiit jëfandikoo lakk jëfandikoo loolu yàlla doomu aadama rek la ko may kon yow mi nga xam ne yàlla dafa dogal ne kooku mu gën a fonk ci yow la ko jaarale ay ngelaw mbigg sa yaram bi fonk ko fonk ko ci di ko muur fonk ko ci di ko suturaal waaye jël saw yaram lépp nga génne fant ba ci kaw xeesal ba mu weex ah, nga foog ne yaa ci ne góor ñi naan la dangaa jekk nga foog ne dañaa bëgg bëgguñu la képp koo xam ne yaa ngi sol lu yiwa di mu naan la dafa rafet bëggu la yéene wu la jàmm yéene wu la noflaayu àddina yéene wu la noflaayu àllaaxira jëmm yi ku bëgg am ma xaana fóon la na la def soxna ku bëgg am ma xaama téye sa loxo na la def soxna ku bëgg am ma xaama tëdd si sa kaw na la def soxna mais doo soxna am du sa borom kër mu araam la nga araam ko ngay lënganteeg moom di ànd ak moom ah donte xëy na àggu leen fen fi la ca gën a ndaw araam na te bu sa papa toogoon doo ko def de bu sa yaay toogoon doo ko def kon lan moo tax suñ borom subhaanahu wa taala bi leen tiim di leen xool nga koy def ci kanamam dafa ñaaw nañ ci bàyyi xel.